bal bala génn ko tuural ndox mi nana lamba gi nii xarfa bi sal sol tiset bi ñaan na waaw ndeysaan nana journée Baba Diaw la daal bal mu wuti dem fi nga xamante open press ba ànd ay mbokkam ki naa naanam xoolee caaturo ba sa nekk si wet ga démb xale bi bëre bëre bu réy bi moog Louis Ndiago moom caatu rëbës ñëw journée bu am solo mooy le 10 ñu ne kan ak ne sal ba wàcc caatu yaraax di journée Baba Diaw lamb ju neex ñaari xale yoo xam ne ñu def ay preuve ci lamb am nañ def ci lamb lu bëree bëri mais na xale bi tamit ku jër a bàyyi xel ci lamb la muy caatu rëbës démb nga daanu mel na yaa daan loolu am solo la ci lamb Bawol Bawol yaa ngi tëj yuuxu ndeysaan ngi koy tàccu moom Zal Bawol ñu ànd ak Zal Bawol gaa yaa ngi suy xolam si dée baa dée bi ak xar fa xuufay xolama li lamba mel ni waaw bu leen suy bay waaw Sall Bala mbër maa mbay guy gee ngi mbay guy gi démb yaa bëri bëri yaa ngi waay mbër moom mbay guy gi démb moo bëri bëri ba Basiru daan jël bu lamb des fois lay tuxu naa la caatu rëbës. abu fay naa la abu. dem nga bëre bëre bu rëy sa diggante ak Luis Ndiago. waaw dëgg la noonu la ma doon demee. dëgg la làmb la woon rek. waaw ma ko ñaan yàlla ko ndam di jik su ma amaatee combat yàlla may ma ndam. Luis Ndiago su ma daanee war na maa mën a daan. doo ut may moom la yàlla àndal si jik ñun ay xale la amaguñ ñuy perte ak ñuy ñàkk. xale yu ndaw leen amaana tur moo ñu teel solo rek mais dama gudd fi dara mais suñu tur moo ji suñu jëmb lan ngay wax Zal Baol si diggante moom ak yow mooy Thiatou Yara. waaw Zal suñu grand la. Zal Baol sama grand frère la. bu amee su ma amee combat dañuy sonn ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndax dinaa comprendre ma koy wax Thiatou Yara bu yéexee du gis du gis dara bu xeexee Zal du ma ko su bëree Zal daan ko ci kàttan yàlla suñu borom waaw. xam nga sa kanam ay saa yi nii sa kanam. sama kanam bëri na maa ngi fu ma gars yi jaaroo fa laay jaar. mais yaa ngi doon léegi sama combat tawaat ñu wax sama combat man par naa pour mbéy ci kàttanu yàlla. waaw wuyu ma may sant DG Seydou Diop damaa bëgg a a may may sant DG Seydou Diop. du ko ñaan li mu bëgg DG yàlla ko yàlla defal DG Seydou Diop jëlee na ma ay car jëlee na ma ay tiset may ma ay billet barke alxuraan ma koy ñaan DG Seydou Diop ma sa doom maa la ñaan li nga bëgg ci àdduna yàlla ko yàlla defal DG Seydou Diop sama waay waa kër bi ñëpp nag barke maam Serap Fall. di am mbégte mu rëy nag tey teew fii ci rëbës nag li ko waral mooy doomu rëbës li ko waral mooy doomu réew mi li ko waral mooy doomu ndakaaru yaakaar naa ne ñaari doomu réew mu ñëw daje tey caatu yaraax ma nga fële ca yaraax waaye tey ñu ngi fekk si fi nga xamante ne mooy Zal Bawol fii ci rëbës fekk ko fii ci dëkkuwaayam fekk ko fii ci feefa muy waajal combat bu mag ci digganteem ak ki nga xamante ne mooy caatu yaraax fële ci stade Iba Mar Diop maa ngi lay nuyu avant tout wax ñu sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di ñaanal xalif général kuli murid di sëñ Mountakha mu yàgg fi lool am wér am gudd fan. ak bépp kilifa diine bu nekk ci réew mi bàyyiwuñu kenn muy Touba Tivaouane Kaolack Ndiassane bàyyiwuñu kenn ñu ngi sant ñëpp di leen ñaan yàlla ñu yàgg fi lool. nga am combat boo ni combat bu doy waar la ndax xale bi ngay bëree tolluwaay màggam ci wàllu lamb est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel. non man aw ma leen loo xam ne dama ciy bàyyi xel ci côté parce que fi ma jógee jaar naa daal fu metti ci làmb waa tëbu ma rek bëre grand comba dama tarbiwu mu metti loolu ma xuus ba agsi dafa nekk loo xam ne mënu woon ñàkk nag moo tax ñu jël ko parce que tamit adversaire la bu ñu respecté bu ñu bëgg te yaakaar naa le 10 yàggatul bu ñëwee incha allah dañ ci am ndam lu sedd guy. waaw. Caatu Yaraax nee na sama adversaire dama ko xam waaye moom xamuma bis ba la may xam. non loolu man mis naa ko ci gars yi ko ci dajal da lay xam naa la di la jéem a ceeñ ci maay li ma ko wax rek. sama yoon caatu yaraax mënu ko yàq man dama am plan de carrière dama am plan de carrière mënul yàq sama yoon. ci côté bu ne nag waaw. combat boobu ngay bëri caatu yaraax naka ngay préparé combat boobu. waaw comme ni ma daan préparé yeneen combat yi ma ko doon àndee ànd koog sama papa Mbaye puy ak staff bi ay zos sama gaay ñoom Omar Fallou mënu ma limb parce que su ma limbee damay juum dafa bëri. stafu Zal Baol dafa bëri par rapport ak ñi ngay gis fekk am na ñoo xam ne tey dañu nekk ci àll bi di ma jàppale ci côté bu ne di profité nag di nu ay kilifa diine yoo xam ne dañuy sonn ci sama bis mooy waa Daaru Rahman di sëñ Modou Abib Mbacké tey ak bépp kilifa bu nekk ci ci réew mi rek tey ñi may jàppale dafa bëri ay kilifa ak tey chérif yi nga xam ne dañ may ñaanal te yàlla rek tax di ma ñaanal ba pare di bokk man seen teraanga muy chérif Bahayda ak Cheikh Talla Bouya Cheikh Sidaati euh, bàyyi bëri na daal ñoo xam ne tey dañ ciy jàpp di profité di nuyu suñ am sa bu baax a baax a baax waaw. mbaa du combat ci ñaan nga ko teg. non ñun ñaan moom dafa bokk ci gàllaaju mbër mais Caatu Yaraax man gëm naa ne man ak moom rek ñu daje ma jaarale ko fu ma doon jaarale gars yi. waaw bokkuñu sax. seetaan nga ay combat non xam naa ko. waaw comme seetaan naa ko xam naa ko su ma ko xamukoon du ma ko jël dafa def ay përfam moo tax ma ñëw jël ko bu dem defukoon dara du ma ko jël xam naa ko waaw xam naa ko ñëwal leneen xam nga caatu yaraax bu baax caat waaw caat moom gëm naa ne xam naa ko mais yooyu yëpp aajuwul tey li ma war a bëri moom maa koy liggéey bis bi yàggatul pour ñu ñëw def li ñuy def jëlëf dem suñu yoon combat bi dina am xeex combat bi lay am lépp lépp lay am day am xeex day am bëri waaw lépp lay am. lan ngay wax say supporter ak amateur yi. di wax amateur yi ak supporter yi ñu góorgóorlu ñëw teel a dagg billet yi ñëw stade ñu daan jóge xoole xool leneen waaw loolu a fi ne daan ko doon xool leneen. boo waroon gis ci combat dem daan ko xooli leneen. noo man du ma dugg ci risque yi ku ñaan yalla dem bëri jeeg roi des arènes booy xaxaat sa diggante ak caatu yaraax risque boo yeboo nga dem toog seen kër man duma ma ragal góor man du ma genre boobu sax. ban appel ngay lancé. waaw li may lancé appel moom damay woo autorités yi nga xam tey ñoo nekk ci Rebeuss bi nekk ci Dakar Plateau bi di ma jàppale. tey maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn ku mel ni suñu papa Diop si euh, Pape Diouf Seydou Camara tey Cheikh Abdou Khader Gaye bàyyiwuma kenn di woo Paul Douanier Paul Douanier Paul Douanier maa ngi koy woo bu baax a baax a baax pour mu ñëw jàpp ci combat bi. di woo euh, Papis Niang di woo Ousseynou Ndour marché ci leen maître Pape maa ngi koy woo di woo maanaam kilifa yi ci jàpp ñëpp laa la wax di woo buri bu Serigne Saliou di woo di Samb sama gars yi Fallou Fallou amical borom Kaolack maa ngi koy woo bu baax a baax baax ci bokk combat bi yaakaar naa am na loo ko bëgg a laaj. waaw am na lu ma ko bëgg a laaj Baye Balla boo xoolee yow li mooy Thiatou Yarakh. boo xoolee année bii ren boo xam si mbir yi gën a gaaw combat 4 minutes de bëri daal. 4 minutes 4 minutes. da daan 7 serpent 4 secondes. 4 secondes 4 secondes. ci 4 secondes da nga ne serpent noir ne Zal Baol bokkuñu man du ma serpent noir man bëri naa combat bu gaaw bëri naa combat bu yéex man loolu garaawul. bu bëggee ñu bëri combat bi gën a gaaw ci song bi na ñëw song ma sànni ko mu jeex. waaw waaw. ci xaar xeex mën nañ ci xaar bëri combat bu gaaw lay ne nekk ci man moo nekk ci moom amateur dañu bi seen bët xool dañ ko waaw mais man du ma serpent noir da nga ne zal bawol ne serpent noir xoolal sama plan de nga xool ñi bëreen nga xool ñi caat yaraax bëreen nga siisee nga xool waaw loolu maa la ko wax kon rendez-vous bi samedi la mais danga may may ma woote parce que dafa am kilifa yoo xam ne dañ may jàppale ci côté bi ne mais maa ciy jiital sama papa Mbaye pour yi nga xam ne man moom du caageen euh, arène moo ñu boole depuis bi may nekk booy lan laa nekk moom ba tey ji dara ñaaw am na am a laaj loo ko bëgg a laaj mooy ni mu def démb loolu moom dama koy féliciter parce que tey bi mu ko defee toog na ñaanal ma ndam mais mu nekk nit bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla na nag ay ndami ndami ndami bi moom ba gis wàllu sama gars yi ñoom njool bàyyiwuma gars yi nees tout sama rakk caatu rëbës démb dafa demoon doon wuti ñàkk ma koy gëmloo ne ah, lamb noonu la booy wuti mën am chaque jour mais li nga ñàkk ne yàlla nekk li si yow moom caatu waa sama rakk la ti déggal na ma waaw mais mais woote moom damay profité di woo waa rëbës ma kenn laa la wax ah waaw sama rakk tigir tamit euh, moom ci équipe bi la nekk ñoo bokk bëri na démb ñàkk yal na ko yàlla suñu borom continué neexal palmarèsam. waaw di woo Dakar Plateau laa la wax bàyyiwuma kenn. di woo waa Rëbës mag ndaw surtout jeunes yi. waa Medina sama gaay yi. waa Bawal ak yaay ak yaay sama dëkk maa leen di woo bu baax a baax a baax si combat di po di woo groupe WhatsApp Zal Baol dañ may jàppale 100 pour cent Zal Baol lu ma soxla instant dañ ko yëkkati di ma ko jox. bu baax a baax. waaw sama grand Omar Ndiaye tamit vraiment maa ngi koy woo baax. profité nag di woo waa Touba waa Daaru Rahman bàyyiwuma kenn sama yaay mère Roxi Seck maa ngi koy sant bu baax baax di sant jigéen ñi nga xam tey suñu amee combat ñooy toog mënuñu tudd kii bàyyi kii ñu leen di wax ñoom ñëpp laa di leen sant di leen gërëm di ñaan ñu yàgg fi trop ba seen seen njaboot yi barkeel waaw kontaan naa maa ngi woo ñëpp nag faxas yoxos amul ragal waaw di ñaan yàgg fi baax a baax